فاضي فورا على فيوض علم يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 Donc concours, nous avons commencé par là Donc nous sommes pas eu de le 2 novembre, le 10 novembre. Donc le résultat, est y a eu le 6e qui est 6e qui a dû le biper. Durant bien sûr que les 1er et durant 2 l'Afrique est le 2e le 6e parce que à mon exécutif. Donc bon, les États-Unis de l'exécutif. Donc l'homme est à 3e exécutif. L'homme est à la 6e. Mais bon, il y a eu des résultats. Il y a eu les 5 premiers. Les 2e en Afrique. Les premiers afrique de l'Ouest.

ba rigueur bi ñi ngi sant itam ki nga xamante ne mooy euh, sëñ euh, Bousso nga xamante ni moo créé rigueur boobu nga xamante ni pour même sëñ daara bu ñu jàngee ba ñëw ñu tegaat yeneen rigueur loolu mooy wane aussi que grand prix Sénégal bi euh, am na asaar am na njëriñ di gërëm. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu li ñu njëkk a def mooy sant yàlla ñaanal fédération bi ñaanal Sénico ci njiital sëriñ Abdoulaye Dia ci njiital sëriñ Talla Diop ci li mu jiite sëñ Moustapha Lo ak fédération bi yëpp. di wax alhamdulilah euh, fédération bi li nga xam ne tey yàlla dimbali na ko ba mu yegsi ci mooy ànd ak mbokk yi nekk ci daara yëpp organisé wu di gën a saytawaat mbir yi ba mu jur fépp fu Sénégal dem ci àdduna bi ci wàllu alxuraanul karim ñu xam ne Sénégal ñëw na maanaam léegi yegg nañ fu nga xam ne du ñu dem ci mbir yi ñëw ak loxoy neen suñu indiwul numéro un ba deuxième ba wala troisième ba ba ci suñu doom ji nga xam ne tey mooy soxna euh, Khady Dramé génn ci daara bu ñuy wax asxaabul kahfi ci soxna Mbayang Cissé ca Louga indi ndam li nga xam ne tey mu rëy nii te itam mu jëloon daaw prix Sénico muy euh, euh, prix bi nga xam ne moom lañ teg fii ci Sénégal ci euh, jury bu nga xam ne ki ko jiite di Mahmoud Hassan Bousso ku ko déggul ci àdduna bi it euh, mën nañu wax ne xam nga ko ci alquranul karim loolu mooy waral xale yi saa yu ñu demee rek wax dëgg yàlla di indi ay raaya yoo xam ne day siggal mbooleem kuy sénégalais waaye day siggal mbooleem koo xam ne ndongo daara nga